asalaamaaleykum euh, sama gars yi ñu ngi leen di ziare bu baax a baax fii ci Rewmi Sport aljuma le 4 octobre 2024 ñu ñëw ci xibaar yi bu fekkee ne abonné goo ñu ngi sàkku nga abonné partagé lii di vidéo bi lu am am solo la ci seen bi ñëw ci xibaar yi. xibaar yi dañ koy daal di commencé fële ca biir Italie dem ci équipe bi nga xam ne moom la ñuy tuddee Juve wax ci kenn ci si meilleurs joueurs yi wax sax te actuellement l'un des meilleurs défenseurs Euh, cette saison ñu koy tuddee donc kii di euh, Bremer donc Bremer gaañu nekkoon euh, nekk foofu ci Juve yu fi jënd woon ko Torino xam ngeen ne début saison bu baax a baax la def loolu sax boole ko ci capitaine yi club boobu nga xam ne moom moo yëfati ci terrain moom nag keroog ci Ligue des Champions bi diggante RB Leipzig ak club bi di Juve ci lay jëlee li nga xam ne moom mooy benn gaañu gaañu bu méttee métti lu jëm ci wàllu ligament croisé moom moo ko dal moom kii di Bremer donc dina toog lu mu gàtt gàtt juróom ñetti weex kon huit mois jàpp ba neuf mois dina ko toog absent ko moom défenseur bi nii ancien défenseur bu Torino bi kon Juve perte na que joueur calé joueur important capitaine di ki nga xam ne moom mooy Bremer ñu ngi koy wax boo rétablissement moom joueur Juve boobu Juve nag mën naa am mu jënd défensif centrale am na ni muy demee Juventus di terrain dinañ dugg ci marché bi jéem a jënd ab défensif central comme ni ko club yu bëri di faral di ko defee bu fekkee ne dañoo perte ab joueur boo xamante si ni joueur titulaire la ci seenu club comme ni ngeen ko gisee ci Barça nga xam ne perte na Ter Stegen wuti ji lii di Szczęsny Euh, de même que ki nga xam ne mooy Youssouf actuellement mi ngi ci ay euh, recherche pour mën a am ab défenseur centrale fi ñu toll nii nag défenseurs yi nga xam ne libre na xaw na nañoo takku am na ñu si bëri nag dañoo màggee maanaam daay défenseurs yu âgé lañ comme kii di Ramos wala bokk même kii di Matip donc ñooñu ñëpp ay défenseurs yoo xam nañ yu disponible lañ ci lii di marché bi léegi nag Youssouf. décidé gul ba xam moom da koy def euh, léegi nii activé ko léegi nii wala boog day doog euh, xaarandi donc ba li nga xam ne mooy janvier waaye nag bu nu sukkandikoo ci li nga xam ne moom mooy doxalindu kii di Cristiano Quintoli ak ku ko xam ak moom donc ambition ak bëgg-bëgg bi nga xam ne am na ko ku ko xam-xam ne bëggul moom mercato anticipé donte nag lii euh, lu urgent la par rapport ak yu fi jënd parce que dafa war jënd surtout que pour gën a mën a dëgëral taxawaayam ci Ligue des champions bi pour mën a. gën a dëgëral taxawaayam ci li nga xam ne moom mooy euh, championnat bi loolu lépp am na solo mais Cristiano Quintoli moom daanaka liggéey euh, été ak liggéey euh, lii di hiver daf ko dàqal ka liggéey ci digg saison bi comme daal di jënd benn joueur mercato mercato ubbiwul ba tax na fi ñu toll nii daal Cristiano Quintoli mën na am xaaral yi ba janvier bi nga xam ne moom mooy jot mu daal di dugg di jënd défenseur boo xam ne donc défenseur bu baax la euh, par exemple moom mën naa dem dugg ci ay défenseur comme tëddu boobu bi nga xam ne tenté woon na ko ba sonn amu ko te mujj mujj dem West Ham wala boog beneen défenseur boo xam ne bu intéressant la bañ euh, jël ñi nga xam ne si jëlee mën nañoo sax bi leen si waat ci diggante bi parce que tellement que assez nañ la ñu waroon a réaliser ci football la ci bëri bëri donc réaliser nañ ko. fii nag lay wane ne équipe bi nga xam ne moom la ñu tuddee waa Juve ñu ngi rëcc bu baax a baax a baax ñàkk gi ñu ñàkk am kii di Ricardo Calafiori loolu sax du samay wax rëccu gi mais waxi kii di tool yi la euh, di euh, directeur sportif bi parce que nee na euh, ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Ricardo Calafiori Euh, c'est une perte euh, pour le football italien xam nga ne ba euh, Riccardo yi tànnee Arsenal bàyyi Juve ñu si bëree bëri ci ay supporteru Inter ay supporteru AC Milan ak yeneen supporter yi nekk foofu dañ doon kaañoo Juve ci Juve lan moo tax recruté wul kii di Riccardo yi mais nag kenn toll nee na leen boo leen ree yéen a ngi ree seen musiba ndaxte championnat bu nekk. li ko war moom mooy fexe ba meilleur joueur championnat bi du ñu génn ci biir championnat bi kon ñun waroon nañoo mën a jëm suñu talaay kàttan même sax yéen boo leen ko mënta recruter ngeen bàyyi ñun ñu recruter ko wala boog ñun buñ ko mënta recruter Milan recruter ko wala Inter recruter ko parce que jour type de joueur yi nii waruñoo quitter championnat bi parce que bu nekkee ci biir championnat bi dafa am beneen beneen xar kanam boo xam ne moom la ñuy jox championnat bi. gaañe nag beneen joueur aussi daal dinay blessé moo tax keroog match diggante RB Leipzig ak Juve match la woon bu métti métti déjà score bi dafa yaatu 3-2 déjà deux blessures am na di kii di Bremer ak i nga xam ne moom la ñu tuddee Nico Gonzalez carton rouge ci côté équipe bi di yuufe seen gardien bi di kii di Rogerio donc match cinq bi donc lu ci xew ci match boobu dafa bëri pour doomu Argentine bi na comme ni ñu ko mentionné sànq dina toog moom gàtt gàtt un mois kon moom daanaka moo gën a moyen grave ki nga xam ne moom la ñuy tuddee kii di Bremer parce que moom trêve yi donc dina durer quelque jours. donc euh, après retour terrain bi daanaka bu absenté waatee 10 jours ci lay yem pour mën a revenir xam ne jàppale équipe boobu nga xam ne moom la ñu tuddee waa Yëfante terrain kon c' est un c' est c' des pertes vraiment des pertes nga xam ne moom la ñu tuddee waa Yufe et j' espère que dina bañ a donc feeñ euh, lool lool lool donc ci seen effectif bi. Euh, ki nga xam ne si ni nag peut-être que mën naa nëbbu kii di Nico Gonzalez muy attaquant bi nga xam ne moom mooy Dejan Vlahovic parce que actuellement dafa jëlaat dafa jëlaat beneen ampleur donc euh, parce que suñu xoolee ces deux derniers matchs déjà marqué na 4 bi ñaari match yi nga xam ne si ni yu fi mujj na dugal na 4 bi moom kii di Dejan Vlahovic les négociations continuent maanaam daal euh, continuer lii di négociation yi diggante kii di Juve ak joueur bi pour prolongation contrat ba 2000 vingt 28 wala bokk ba mille 2029 ci fàttali nag ki nga xam ne moom mooy Dusan Vlahovic marqué na lu toll si 6 bi si juróom-ñett match yi mujjee ak euh, wowuñu ko nag ci équipe nationale serbe bi pour pourquoi parce que nee nañ problème personnel la maanaam daal euh, bilansewul jotewut ak équipe nationale bi kenn mais moom ci boppam moom mooy lijjanti ay mbiru boppam te permettre ko donc mu mën a dem fekk ji équipe nationale bu Serbe kon moom day toog absenté lii di match yi war a am weeru octobre. beneen joueur bi nga xam ne moom absenté wul moom ci liste bu Portugal bi di kii di Francisco Conceição donc Francisco Conceição gaa yi nga xam ngeen ne bokk na ci euh, type de transfert bi ma contre mais nag bañ demee ba ci digg ba ci la réaliser que ne Yofi mi am na quelque chose lu muy préparé xam ngeen ne ab ab joueur fay fukki million loolu moom jaaduwul mais nag Yofi moom xam na ne bu saison bi jeexee bu gisee li mu bëgg ci joueur bi dina ko jënd 30 millions donte nag amul benn clause mais clause booy bi ci boppam moom mooy 30 millions donc Yofi jëru mu ci def clause xëy na ko Porto dana ko juróom ko ci def ci fàttali nag ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Francisco Conceição sur les deux derniers matchs dugal na benn bi deux bi def benn passe décisive donc il fait partie euh, des joueurs yi nga xam ne ñu commencé adapté ci club boobu comme jafe-jafe yi nga xam ne seen pour côté adaptation yooyu noonu moom donc dese na am problème bu ni mel moom kii di Francisco Conceição yaakaar naa du bett kenn par rapport ñi ko daal seetaan Porto ba Bayern na sax nekkoon ci yoonu jënd ko war a Borussia Dortmund du bett kenn aussi koo xam ne seetaan na quelques matchs après donc ki nga xam ne moom la ñuy tuddee euh, foofu ci Juve dañuy dem ci club bi nga xam ne moo formé kii di Francisco Conceição abal ko même si kii di Juve di konk kii di Porto donc démb euh, gis nañu ni mu def man Manchester United ñu daal di niil 3 euh, bi partout. Euh, sama Omar Dijon donc bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo gën a fës euh, ci match boobu ñu dugal ñaari bi turam dikkoon nañ ci plusieurs fois peut-être sax euh, ku demoon xool Xavi Hernandez ak Jules Koundé ak Ronald Araujo joueur bii nii joueur bu nu xam la parce que yéen a ngi fàttaliku daaw Deportivo Alavés ak Barça bi temps yii Ronald Araujo di football latéral droite kii di Koundé di ak si donc match boobu noonu. moom mu sonaloon trop ci premier mi-temps bi Koundé parce que Koundé buy football défense sax sans le ballon donc day xaw a yéex donc joueur bi gagné woon ko bu baax a baax physiquement mais aussi tamit ak côté vitesse ba Ronald Araujo Safi wax ko mu delluwaat ci axe bi laataa ko ñuy mi donc loolu di wane encore dayoo bi nga xam ne jour bi am na ko ak yenn ci qualité yi nga xam ne am na ko qualité physique am qualité de vitesse waaye tamit qualité technique am moo ko permettre loolu moom nag dugal na ñaari bi ci fàttali nag équipe bi di Atlético ba mu koy jaay joueur bi bëgg woon dem mais Atlético moo ko forcé surtout pour bëgg jënd Julián Álvarez te supporter Chelsea tamit peut am lu leen neex parce que joueur bi jege woon trop pour doon joueur Juve euh, joueur Chelsea dinañ ci dëkk ci kanam la moo tax mu doon joueur Chelsea ki nga xam ne si ne moom lañ tuddee sama Amad Dion nag ci fàttali Porto mi ngi ko jëndee 15 millions 15 millions la ko jëndee Atlético am na ci 50 pour cent kon Porto ci boppam 15 pour cent yi 50 pour sañ naa jël juróom juróomi million joxaat ko Atlético récupère waat yeneen 15 pour cent bu ñu demee ba 2026 mu jëndaat ko encore yeneen 5 millions ci yeneen 15 pour cent kan yi doon na 30 pour cent donc au total donc da koy dikkee daanaka lu toll ci 25 millions donc cinq millions mu récupérer li nga xam ne moom mooy. Euh, quatre euh, soixante dix pour cent wala quatre vingt pour cent bu ko defee alal ko après vingt pour cent la ci am donc am na clause libératoire bu cent millions ak tamit contrat ba deux mille vingt neuf donc jour la boo xam ne actuellement protégé nañ ko ci gàttal daal fii ba deux mille vingt six diggante bi Porto am na fi chance. pour jéem a récupérer quatre-vingt pour cent ci jour bi parce que fi mu ne cinquante pour cent yi la moom léegi nag pour récupérer yenn quinze yi faaw mu fay cinq millions deux mille vingt cinq di jëntewaat yenn quinze pour cent fay cinq millions donc muy dix millions dix millions yi plus quinze millions muy vingt cinq millions au total moom nag gaa ñi xam ngeen ne doomu Espagne la moom a tax ma ne Espagne yor nañ ëllëg goo xamante si nii bu fekkee ne nii ñu commencé ñoom ñetti joueurs yi nii yeggalee nañ ko mën na bokk peut-être yi nga xamante si nii mën nañoo sax wëri ji coupe du monde ci at yi nga xam ne moom la ñu dëkkmal di kii di Nico Williams Nico Williams yaakaar naa ne nekkatul koo xamante si nii dañuy sikki sàkka ci qualité yi nga xam ne am na ko parce que gis nañ ko li muy def Bilbao mais surtout ci euh, durant Euro bi sama Omar Dion def na preuve am à Deportivo Alavés donte nag Atlético moo ko moom mais mosul joué ci équipe première bu mag bi fi ñu toll nii nag gis neen ko dugal na lu tollook sept bi ci six matchs yi nga xam ne moom la mujjee dugg euh, joué moom kii di Samu Omodjian Lamine Yamal waxaale tuñ ko le meilleur buteur donc le meilleur passeur euh, de dernière bi futur Golden Boy donc kooku yaakaar naa ne am na possibilité pour jàll faneen kon ñett joueurs yi nii mën na doon ne ëllëg ñoo na a gàddu équipe nationale bu Espagne donte nag Samu comprendre ma sax lan moo tax kii di da donc dala da Danfosque euh, woowu ko ki nga xam ne moom mooy José de la Fonte parce que euh, manqué nañ attaquant boo xam ne buteur la donc ni c'est normal que mu daal di dëkk mais nag war ko ci équipe nationale dina intégré wu ci bu première bi beneen joueur bi nga xam ne si aussi Chelsea doon na ko euh, laajte ci lii di mercato bi ñu génn di kii di John Duran moom tamit gars ñi xam ngeen ne dafa nekk ci ay guddeem actuellement moom kii di Duran parce que bu ñu xoolee. trois cent et quelques minutes lay joué saison bi dèjà dugal na six bi waxuma la bii di mu dugal mais bit yi ci boppam bëri gi ñu bëri noonu la rafete ay bit yu exceptionnel bokk ci dernier bit bi nga xam ne dugal na ko contre daanaka l'un des meilleurs euh, war bokk kenn ci meilleur gardien de l'histoire yi di ki nga xam ne moom mooy Manuel Neuer moom ki nga xam ne moom mooy Thuram moom ci fàttali benn yoon la titulaire ci biir saison bi benn yoon la titulaire ak stade yu baax yi yëpp moom mooy meilleur buteur Aston Villa te pourtant di ñëw moom mii ñu dikk nag ci ñaari yi lan moo tax vraiment demuñu Chelsea ñoom ñaar bi ci njëkk nañu njëkkee joueur Aston Villa bi di kii di Duran Duran moom bëggoon naa dem Chelsea ba daanaka moom ak Chelsea trouvé woon nañ accord personnel maanaam daal lu jëm ci wàllu contrat bi durée bi ak bi yëpp matoon na lan moo desoon diggante Aston Villa ak ki nga xam ne moom mooy Chelsea léegi nag Chelsea. Euh, dañoo bëggoon a dugal ci mbir mi kii di Gallagher mais Gallagher ci boppam moom moo rejeté Aston Villa maanaam daal Chelsea joueur bi mu bëggoon a jël dugalante ko pour mën a am kii di Durant joueur boobu noonu moom moo ne bëggut dem Aston Villa léegi après ci la euh, loolu yàqu pour ki nga xam ne moom mooy sama Amour Dieng moom moom Chelsea daanaka ñoom ñoo ko yàqal seen bopp parce que Chelsea ñoom ñoo dem ba ci digg ba daal di modifier contrat bi dox diggante ñoom ak Atlético de Madrid maanaam daal 40 millions yi ko. Chelsea bëggoon a jënd Chelsea moo dem ba si yàgg ne 40 millions yi donc dafa bëri mënuma kaa jëndee jour bi donc loolu mujjul am donc ñaari joueurs yi yëpp kon ci gàttal kenn ki Chelsea moo ko xañ boppam di Samu Hojbjerg et l'autre vraiment Gallagher moo leen ko xañ mi nga xam ne tey ba nga fële ca Atlético de Madrid loolu nag li muy wane mooy man sax dama contrôle donc Chelsea recruté deux attaquants ba noppi amaat yeneen attaquants yu fa nekk donc amaat yenn attaquant mais lii li nga xam ne moom mooy preuve bi mooy que euh, li nga xam ne moom mooy directeur sportif yu Chelsea yi wala boog dirigeant yi euh, globalement donc ñi ngi identifier ay joueurs yoo xam ne ay joueurs yu parce que joueurs yi nga xam ne sax Chelsea jëndu leen donc te piste woo leen bëggoon leen a jënd da ngay gis ne saison bi ni ñu ngi def seen saison kon ñoom gis nañ mais nag dañuy seen seeneen bi parfois jéem a toog ay yor moyen de joueur comme ni ko ki nga xam ne moom Enzo Maresca waxee moom effectivement bëggul mu weesu 26 donc 26 joueurs c'est bon pour travailler pour jéem a Chelsea donc fa nga xam ne fa la mérito ci fàttali nag moom kii di Enzo Maresca ñi ngi tudd naan mën naa am mu xëccal ji championnat bu Angleterre moom nee na gëmul loolu pourquoi gëmu ko ndaxte nee na yor City liggéey na juróom-ñeenti at ki yor Arsenal liggéey na juróomi at Arsenal donc moom sax defu ko fi sax daanaka benn at donc mënut a bokk ak ñoom équipe ba ne donc day xeex pour gagner championnat bi ah théoriquement loolu d'accord mais loolu du ci dara parce que ki nga xam ne moom mooy Leicester City dañoo ñëw daanaka seen première année deuxième année bi nga xam ne si ne deuxième division lañu bi donc yaakaar naa ne loolu du ci dara mën nga kaa gagner sans problème ki nga xamante si nii moom la ñuy tuddee donc kii di euh, Jules Koundé wowat nañ ko ci équipe nationale bu France li tax ma ne wowat nañ ko mooy que parfois dama ne soit Barça ñu noppal kii di Jules Koundé ci boppam France ñu noppal kii di Jules ci am ci ñaar yooyu parce que Jules Koundé lance bii nga xam ne jël na ko ni ñoo ngi naan ab donc infatigable la ku dul sonn ak lépp mais day fayu donc Jules Koundé Gagny joué na toutes les minutes possibles avec la Barça maanaam daal 900 minutes la joué avec Barcelone donc li mu mën a joué lépp joué na ko maanaam retiwul benn match retiwul benn minute lépp donc joué na ko lu mat ay 90 minutes moom kii di Souleymane Koundé beneen bi mooy boo boolee donc li mu joué Barça ak li mu joué équipe nationale mën na 1000 minutes. donc moom kese nag moom moo fi defagul lu ni mel actuellement ci biir saison bi moom ci desul ko ne yaakaar naa noppalu jot na parce que match si day enchaîné et que fin de saison la ko France gën a soxla fin de saison la ko Barça gën a soxla ki nga xamante ne Barcelone soxla na ko actuellement ñu koy tuddee Dani Olmo gars ñi xam nga ne Dani Olmo dina mën a récupérer après surtout avant euh, surtout après trêve bi way euh, contre FC Séville daal lu ñu wax ne. kii nga xam ne moom la ñuy tuddee eh, Jules Koundé dina mën kii di Dani Olmo dina pare mën a pare à 100 pour cent loolu li muy wane mooy dina fekk kon mu pare contre Bayern eh, na 100 pour cent pour mën a jouer choc Ligue des Champions boobu ndax gars ñi ci fàttali bayaar na ak eh, Barça ñoo tolloo même point Ligue des Champions trois points bayaar na donc jiitu ko ci kanamam benn équipe bii di euh, Barcelone nekk ci ginnaawam yaakaar naa diggante quinze quinze ak seize donc noonu la ñu defante beneen ba aussi Dani Olmo kon dina mën a pare le 26 octobre kon Dani Olmo yéen supporter Barça yi nga xam ne yéenay demande kañ lay ñëw si gàttal dina fekke match yi nga xamante si nii moom la Barcelone di jouer bu trêve bi jeexee premier match bi normalement dina fekk mu disponible yeneen joueurs yi nga xam ne aussi dinañ disponible moom mooy kii di ak ki nga xam ne moom mooy Fermin Lopez Gavi ak Fermin Lopez peut naa mën nañu bañ a participer. ci bayaar Bayern ak ki nga xam ne moom mooy Barça mais surtout nee nañ classico bi dina leen fi fekk te sax am na ñu wax ne am na nu muy demee dinañ participer ci Bayern nag contre ki nga xam ne moom mooy Barça loolu nag li muy wane mooy ñoom ci si gàttal ñoom joueurs yi Barcelone yi nga xamante ne ñoo ngi fi actuellement tout le monde donc sauf donc peut-être deux joueurs ouverts quatre joueurs sauf quatre jours di ki nga xam ne moom mooy Ronald Araujo parce que Araujo décembre jàpp sans fii lay ñëw. Ter Stegen fin de saison Marc Bernal fin de saison Christensen donc pas encore ki nga xamante si moom la ñu tuddee donc Pablo Gavi ak ki nga xam ne si moom la ñu tuddee Fermin Lopez ak Dani Olmo joueurs yooyu noonu ñooy disponible ci fin octobre bi kon octobre bii ñu dugg génn Barcelone lu mu gàtt gàtt mën naa rek trois joueurs di Gavi Fermin ak Dani Olmo ak peut-être même kii di Christensen ki nga xamante si ni ñi moom la ñuy tuddee lemin Yamal. Lamine Yamal donc euh, mi nga xam ne si moom moo gagné meilleur passeur heure bii ñu génn Lamine Yamal mi nga xam ne fi ñu toll nii ñu si bëree bëri donc dañu euh, impressionné wu da leen a jaaxal ci par rapport ak niveau bi nga xam ne am nga ko à l'âge de 17 ans seulement Lamine Yamal gagné tabb nañ ko officiellement meilleur joueur donc euh, Liga mois de septembre donc septembre bi ñu génn ki nga xam ne moo ci gën a dox ci weexu septembre bi bien sûr que moom mooy kii di Lamine Yamal. Euh, dugal na deux bi def deux passes décisives sur quatre matchs donc impliqué quatre bi sur quatre matchs moom ki nga xam ne moom mooy Lamine Yamal kon fi mu mi ngi ci forme bu baax baax kon Barcelone dafa xam ne moom moo xaw a déminé début championnat bi parce que Rafinha moo gagné woon bu août bi kii di Lamine Yamal gagné bu septembre bi kon ñoom mayewuñ dara ci lii di début championnat bi gaa ñi continuer leen abonné partager lii di vidéo bi c'est hyper important di leen jox ci kanam incha allah ci beneen vidéo jaa ngeen jëf. thank you